war a noppalu togg jot ñu war a togg fekk yooyu ñu ngi ñu ngi yore woon benn gàtt am ku wax ne man dey bi togg jotee kenn ci ñoom wax ne man dey danaa rey gàtt bi fees ko kenn ci ñoom ni man danaa wuti ndox mu ñu toggee kenn ci ñoom ne man danaa taxaw ci togg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni wàlle ya jamul xatam may itam maay dem taxane ko kooku bi mu ko waxee ba noppi dafa da caa teg ni sayyidul xawmi xaadimahum biñ ko laajee lu tax yow yonente bi salaa alayhi wa nga jóg yow yaay sum sang yaay sangu sangu sangu mbindéef yi ñun lépp mën la ko defal waaye yow nga nga bëgg a togg woone nag dangaa bëgg a dem wuti matt ngir ñëw di di ñu ko jox ngir ñu togg loolu lan lan lay tekki mu ne sayyidul xawmi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal kon foofu bu ngeen ko seetloo da ngeen di gis ni baatu xidma bi day mel ne ñëw na waaye génn na ci contexte bi ko boroom xam-xam yi njëkk yi définir woon parce que borom xam-xam yi njëkk yi ñu ko définir woon rek ci diggante jaam bi ak boroomam kese fii nag dafa mel ne génn na foofu bu dikkee ci sëriñ bi ni mu ko déggee dana tax mu gën a mu gën a yaatu euh, dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wax ne ki gën a ki gën a baax ci nit ñi mooy ki nga xam ne bu àndee ak nit ñi mooy ki ëpp lu mu leen di liggéeyal ki ëpp lu muy yanoo ay coono kon loolu ba tey dangeen di gis ne baatu xidma daal dinay dugg foofu euh, bu ñu seetantalee loolu nag boole ko ak li ñu njëkkoon a wax moo ñuy may ñu dugg si ñu nag ki nga xamante ni mooy Serigne Touba radiyallahu taala anhu moom nan la gisee li ñuy wax xidma Serigne Touba radiyallahu taala anhu gis-gisam ci xidma moo gën a yaatu mbooleem borom xam-xam boo xam ni yaa ngi doon yëngu ci lislaam te doon définir xidma sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala ab gis yi naam ci xidma moo gën a yaatu mbooleem borom xam-xam bu fi bu bu bu ko bu ko mas a def ndax sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala da koo jël def ko maanaam da koo jël def ko moom muy nasariya nasariya ni ma ni ma ko bëgg a waxee mooy mën hëj maanaam mën hëj bi nga yoon wi nga xamante ne moom la sëriñ Tuubaa indi te ñu koy mu yoonu murid yoon woowu mu war a indi ca lu yàgg yàgg lu jiitu lu jiitu muy muy woote yoon wi maanaam baatu ma dafa nekkoon ci biiram moom sëriñ bi mu di ko jéem a mu di ko jéem a exprimer waaye amul fu mu ko exprimer maanaam koy jéem a génnee waaye amul amul amul amul bii a amul yoon amul place bu mu ko mën a génnee nga xam ne moom sëriñ Tuubaa gàttalul gàttalul euh, xidma ci ni ko gaa yi defee mooy jàpp ne xëy na julli kese la wala woor kese la wala aj màkk kese la wala jëfandikoo werd comme werd yi ñuy jëfandikoo nga xam ne bépp tarixa bu nekk am nga werd ñu ñu tënk ko ci loolu sëriñ bi moom du ko génnee ci contexte boobu dugal ko foo xamante ni mooy gën a yaatu te bu ma ñuy da ngeen xam ni fi ko dugal moo gën a yaatu moom sëriñ bi radiyallahu taala fikra boobu nekkoon ci biiram mu bëgg koo exprimer bëgg koo génnee te xamul maanaam amul amul yoon wu mu ko génnee mu tàmbali di di sóobu yoon yi maanaam yoon yi mu fi fekkoon yoon yi mu fi fekkoon mu di ci sóobu ngir bëgg a génnee loolu waaye day gis ne bu sóoboo ba ci biir yoon yooyu dañuy dem ba lim li nekk ci biiram xajut maanaam li mu gisee ma moom xajut ci yoon yooyu moom la moom la sëriñ bi di wax naan awalu ma ibtadaa bihi al taallaqu bi man lahu taqdimu taqdimu taqdimu mu ne moom moom xaadim rasul bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy sóobu ci yoonu ñi ko fi jiitu sóobu ci yoonu ñi ko fi jiitu indi indi maanaam li nekk ci biiram mu exprimer ko ci biir yoon yooyu maanaam mu feeñal ko fesal ko waaye xaju fa xaju fa wa as moo tax mu wëlbatiku nag daan ne wa asharal xidma xaama xaysasin wa qalbuhu admaraha min asasin mooy mu mujj nag feeñal liggéey bi ci ci euh, xaysasin mooy côté 1895 mu ne wax wa qalbaha admaraha fekk xolam bi dencoon na ko ma bi mu koy feeñal denc na ko lu yàgg lu jiitu mu koy mu koy feeñal nekk na fi ak Maam Mor Anta xit ma nekk ci biiram mu di ko jéem a exprimer waaye mënagu ko woon a waaye ci vers mille euh, ci li mu weer vers mille diggante mille huit cent quatre vingt deux ba mille huit cent quatre vingt quinze ci diggante boobu la sëriñ bi génnee li nga xamante ne mooy li nekkoon ci biiram te mooy xidma bi kañ la ko génnee mooy bi nga xamee ni euh, place bi mu ko war a génnee place fu mu ko war a jaarale ni ma ko mën a misaale mooy bu amee aw ñam wu ñu war a wu ñu war a yekk faaw mu am ndab lu mu xaj suñ toggoon benn mën ba mu ñor ñu bëgg koo yekk ci benn super ku am xel boo bu ñu tegee super bi commencé yekk da ngay xam ne impossible lii mënul nekk parce que mën a xajul ci super loolu dontelee super ndab lu baax la ndab lu ñu mën a jëfandikoo la waaye dafa àttanut liñ ko war liñ ko war a kii loolu rek laa jublu jubloo wax ci maanaam fi mu njëkkoon a jaar jublumaa xeeb yoon yooyu yoon yooyu yoon yu baax lañ yu ñu mën a jëfandikoo lañ waaye dama ko misaale ci mbana gi ak super bi lii sëriñ bi indi dafa xajut ci maam bu ñu ko ci yekkee da ko ci dul xaj léegi nag ngir mu ngir mu am ndab lu mu xaj mooy bi mu toogee mbàkk Kajoor ba lisaanu xaal dikkal ko mooy kàddu googu waxoon ak moom ci mba ci Mbàkke Kajoor ni ko yaral sa njaboot gi ci yitte waaye bu leen yar ci jàngal leen kese muy muy muy muy muy muy kii bu siiw rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi dar si faqat kon foofu la foofu la ndab li mu war a yàq li mu yor foofu la ndab loolu dikkee muy muy muy ni mu noonu mu siibe ci ci ci mbàkke ci ci ci mbàkke kajoor ci bi mu bi ko kàddu gi dikkalee te mu dajale woon mag ña fa nekkoon wax ak ñoom euh, dontalee loolu taxu ñoo jóg mooy bi mu waxee ne képp koo xam jàng la fi yëkkati woon jàngam kese la fi indi woon mën ngaa mën ngaa yeeweeku képp koo xamante ne danga li la indi mooy dama laa doy lu ma nekk nga nekk ca mën ngaa toog ndax mbir mi dafa soppeeku dafa am leneen lu ñëw lu bokkut ak li ma yoroon ñu wax ne mbooloo mi seddlikoo na am nañu nettalikat yi dañ koy nettali ñaari xaaj ñii di ko wax ne ñetti xaaj waaye lu mu ci mën a am na xaaj bu dem am na xaaj bu fa des loolu moom mooy li siiw xaaj ba fa des nag ci xaaj ba fa des nag ñoom la sëriñ bi war a àndal mu war a nekk nag li nga xamante ni ci la yekk ndab lii nga xamante ni ci la war a yekk ñam wi nga xamante ni mooy wi nekk ci biiram te xidma euh, baatub xidma bi ba tey bu njëkkee ci ko ci moom bi mu koy yàq ci gàttal ñun ñu mën koo dégg-dégg leer leer muritam boobu nga xam ne moom lañuy ñuy wax Cheikh Ibrahima Fall moom moo ko gàttal mooy jëf jël jëf jël loolu mooy mooy xidma jëf jël moom noonu la ko noonu la ko la ko noonu la ko noonu la ko gà noonu la ko gàttale boo demee ci benn téere sëriñ bi bu ñuy wax Majmuul Mosaaya numéro 7 numéro set bi nga xam sëñ Saaliw moo ko dajalul woon boo demee ci biir sëriñ Tuubaa dafay misaal dafay wax xidma da koo tënk ci lii xidma mooy al ilmu naafiu wal xamalu saalihu wal adabul mardi ci yooyu rek la la tënk murid yi mooy fexee jàng ba xam buñ xamee ñu jëfe bu ñu jëfee ñu seetlal jëf ji ànd ko boole ko ki teggin loolu rek mooy mooy xidma bi mu wax ne mu mu tënkaat ko feneen wax ne dëgg dëgg gi dëgg dëgg mbir mi dëgg dëgg mbir mi mooy di yéene ci sa xol lu baax di wax lu baax di def lu baax loolu moom mooy mooy dëgg dëgg mbir mi mooy niyatul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul xayri Euh, loolu nag bi mu ko tàmbalee taxu maanaam tax milliers yi milliers yi mu nekk li mu indi ak yaatuwaay geeg dëgër gi mu ci bëgg moo mooy sabab tuxu gi mu jógee Mbàkke Kajoor ndax xam ngeen ni Kajoor booba euh, royaume bi fa la nekk muy royaume buur yi fa la nekk ceddo bi fa la ëppee doole te tubaab baa ngi soog a xeex ak joom ba bay soog a faagaagal Lat yeneen a ngi ciy am yu bare baree fay am mënut a nekk ak ñoom ndax lim soxla ci mbooloo bi dëgg dëgg pour mu am ko faaw mu wuti feneen foo xamante ni mm, fu mu yekkee li mu li mu mu togg la mu toxoo foofu dikk Mbàkke Bawol waaye Mbàkke Bawol itam bi fa ñëwee xam ngeen ne fikral jadida ci xalaat bu bees toujours doomu aadama moo nanguwul nanguwul lu bees doomu aadama li mu tàmm mooy li mu xamoon li mu xamoon li ma xamoon doon ko def su lu bees ñëwee rek doomu aadama de faw day am day am day am da koy contre du ko nangu xanaa ñi yàlla dimbale yàlla dimbale ñooy ñooy ñooy ñooy nangu xam ne lii nii la war a demee waaye ñi ëpp ci nit ñi la xamoon boo leen indilee leen dañuy daal di taxaw di maanaam du du demee noonu moom nag sëriñ bi. di leen tatagal ci jotaay bii nga xam ni ñëw nañu fekk si ko euh, bu ñu weelee fi ñu nekkoon te mooy sëriñ bi xitma bi nga xamante ni indi na ko moom toxal ko bi mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal te ma waxoon ni nit lu mu lu bees ci moom da koy da ko da ko nangu moom la arab di wax naan al insaan uddu ma la lépp lu mu lu mu réere xamu ko da koy da koy noonu looloo tax mbàkke bawal mënu foon a yàgg mënu foon a yàgg mu toxoo mbàkke bawal soog a ñëw sanc daaru salaam dëgg dëgg liggéeyu xidma bi nag mi ngi ko tàmbalee ci daaru salaam mag ñi da leen wax ni seen njàng mii bu mu yàq dara ci seen liggéey bii seen liggéey bii bu mu yàq dara ci seen njàng mi nee nañ sëñ ma bàngi njaay xuja bàlla ni ko bi mu ne bi mu ne loolu de bu ngeen ko defee da lii ma leen wax bu ngeen ko defee bu ëllëgee da ngeen ay saabu yoo xam ne samay gàkk da ngeen ko mën a fóot sëñ ma bàngi njaay xuja bàlla ni ko ma yow mbàkke am nga fenn gàkk bañ koy fóota mu ne ko waaw am naa gàkk ndax dañoo wax ni damaa fay taalu jàngu yi mu ne lii ma leen wax ne bu ko defee da ngeen dem ba jëmmi jamono fépp ci àdduna bi bu ñu amee mas alam diine moo xam ne dañ ci gàgg bu ñëwul Tuubaa duñ gàggantiku kon xidma bi loolu la loolu la ëmb mu daal di yar mbooloo mi ci yitte yitte am yitte te xam ngeen ni yitte mooy li nga xamante ni moo mënta ñàkk ci mbir moo mënta ñàkk ci mbir maanaam nit lépp lu muy def bu ci amul yitte pour loola loola loola jëm kanam du mën a nekk nit ñi doon doon doon doon nañ gëm yàlla danañ julli danañ woor danañ def kii mais himma bi yitte biñ ko waroon a jox yitte jiñ ci war a def yitte jooju moo doon des sëriñ bi nag yar nit ñi ci yitte yar leen ci yitte di doxal di doxal loolu di leen di di leen ci di leen ci jëmbat maanaam di jëmbat liggéey boobu liggéey boobu muy xidma bi ni ma ko waxe woon ñi war a jàngale mu sant leen ñuy jàngale ñu taxaw ci jàngale ñi war a yare ñi war a yare nga xam yar kese yar kese bokkut ak njàng ak yar bokkuñu ñi war a yare mu di leen yar mu di leen yarloo maanaam di leen yarloo ñii nga xamante ne dañoo war a liggéey dañoo war a liggéey lu jariñ nit ñi mu di leen liggéeyloo noonu la noonu la moo ñëwoon mbooloo mi nga xam ne kenn ku ci nekk fu mu toll day seet loo xamante ni luy njariñal luy indi njariñal mbooloo mi la mu di ko def lu mbooloo mi yittewoo am na ñenn ñoo xamante ni ñoo cay taxawoo noonu la noonu la defee woon noonu la defe woon xidma bi sëriñ bi nag bi mu waxee mbooloo mi loolu mbooleem li leen santoon lépp dañ cee taxawaay taxawaay bu taxawaay bu rafet farlu ci def ko def ko yitte ba nag ay kàngam yu mag a mag a mag yoo xamante ne fenn fu nekk sëriñ bi dafa leen a samp ñu mën a taxawal lu mel ne lu mel ne lii muy taxawal buñ dikkee ci mbindum sëriñ bi dañ fi fekk moom sëriñ bi ci boppam muy misaal xidma bi nan la ko nan la ko nan la ko dundee dafa wax ne ubaayi rasul al mustafa bi xidmatin mu ne jaayante naag sallallahu alayhi wa sallam ci ci liggéeyal ko waaye maa ngi ñaan suñu borom mu defal ma ak matal mu defal ma ak matal matal googu nag suñ borom def na ko te loolu ci bu ñu demee ba ca mujjantal ga da ngeen xam ne eh, def na ko mu def mu wax mu wax ne yaabudu kulli rabbul alamin inshaahu bi xidmatil haadil amin mu ne sama sama jaamu maanaam sama lépp sama lépp jaamu yàlla la sama lépp jaamu yàlla la nga xam ne sëriñ tubaa ci dundu sëriñ tubaa amatul amatul aada li ñuy wax aada amul amul aada xam nga dangay gis ci bokki murid yi bokki taalibe yi kuy kuy xewlu ne maa ngi liggéeyal sëriñ bi kuy xewlu sax di tibb di seex ni maa ngi liggéeyal sëriñ bi parce que ci ci dundug sëriñ bi moom dafa amatul dafa amatul aada lépp lu lu lu lu lu taalibe bi di def day dëppoo ak liggéey ak sëriñ bi moo tax moo ni sama lépp jaamu yàlla la waaye dama ko dëkk ci xidma nag danga nga ciy am yéenee xidma nga xam ne lépp looy def danga nga ciy da ciy fas am pas-pasu maanaam lëggéeyal lëggéeyal sëriñ bi mu ne xidmatu xayra aalamina ad xalat fii kalkal yi asraara waxat xalat mu ne lëggéeyal lëggéey bi may lëggéeyal ngën gi bindeef dugal na ci sama xol ay mbóot ak i secret yoo xamante ni maanaam faat na faat na ci moom rek la man a amee faat na bu dul moom loolu mënutul nekk loolu lépp nag bi ko sëriñ bi def da koo def teg ko ci kaw ndigal ndax nammeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la maanaam yonente bi moo bëggoon loolu sëriñ bi bind ko ni raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindéef moo sàkku ci sunu borom ñaan suñu borom ni ko damaa bëgg kii di ahmadul xadim nekk sama liggéeykat kon ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bi ko yàlla mayee moom sëriñ bi ba noppi nag mu wëlbati ko taxawaat ci xidma ndax li ma li xamee ne xidma du mat da nga dul matal bi mu defee loolu ba ba ba ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ko ba suñu borom nangu ko moom dafa daal di wëlbati ko waat nag sa daat ay bayit ni sakartuhu isqasani fi xidmatil maahisani saa xidmatin fil alani lahoo fakka walla mi maanaam sant naa sama borom ñu ne loo ko sante mu ne parce que kat moom suñu borom moo ma jagleel moo ma jagleel jagleel jagoo jagoo bu ñu ko waxtu ma yoon danañ danañ leeral lan mooy jagoo ixtisaas yi nga xam lii nit ki moo ko jagoo keneen mënoon naa def mënoon naa jéem koo am waaye du ko mën am parce que jagoo la mu ne yàlla moo ko jagleel liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ma ma ko liggéeyal liggéey bu sell bu màgg ni ma moom ma dem ba moom liggéey bi nag xidma xam nga xaadimu rasul xaadimu rasul man moom moo am mooy mu dem ba moom ko bi ko moomee nag nee na ci la ma lépp loo xamante ni luy yàq la wala luy jafe wala luy ànd ak la moo moo tax mu ne bi nga xamee ne nag loolu am na nag mu mel ne li daboon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo dab mooy li mu doon dox lépp ci mbàkke kajoor mbàkke bawol ba ci daaru salaam lépp maanaam liggéeyub suuf liggéeyub ndànk ndàkk la woon waaye fii nag bi yonente bi sallallahu alayhi wa bi ñu ne fas da bi maa tuumar mooy liñ la liñ la sant nag na nga ko na nga biral na wax ca kaw looloo dab sëriñ bi mu daal bind ni fii ka unaadi kullal bilaadi li sil ibaadi baani ximaan daa di ne yaa ahla barri yaa ahla bahri xoojoo lil barri bahri saqaayi woo woo woo woo woo ñëpp géej ak jéer yi fu waaye mën a nekk na ngeen sóobu ci dex ci géej gi te mooy géejug liggéey gi nga xamante ne indi naa ko mu mel na buñ ko bi mu woo nit ñi dañ koy laaj ne ko lu xew lan lay doon mu ne ibaadatan lakka wa xidmatan li waj li man alal wara fadalahu mu ne woote bi du dara lu dul jaamu ngir jaamu jaamu jaamu suñu borom jaamu ko ak liggéeyal ko liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne yàlla mooy ki ko gënal mu mel ne kon woote na mbooloo mi war nañoo jóg wuy si mu mu mu daal di mu daal di wax nag ne ah ñi yéen nii ngeen di mel nii ngeen di mel ñu ne nu ñu mel mu ne ñett ci ñetti mbir lay tege sama sama sama liggéey bi ci ñett rek lay tege ñu ne ko ban ak ban la mu ne mu ne bi xidmatin da may liggéeyal aw bi xubbin da ngay bëgg aw hadiyaat nanga ko joxe addi tuuba li habdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw bi haadiyati mu mel ne mu mel ne murit bi dafa am benn garat bu mu àndal mooy saadex saadex lan moo la ciy eggale lan moo la mën a àggale ci saadex pour nga àgg ci saadex faaw da def fi ñuy wax xidma dangay ngay liggéey da ngay liggéey koy liggéeyal liggéeyal sëriñ bi danañ am na am na ci bunt ci kanam danañ ci danañ ci ñëw waaye tamit dangay bëgg dangay bëgg bëgg bëgg moo mën a yóbbu nit fenn fi bëgg sëriñ bi yonent bi sallallahu mas naa wax saxaaba yi ni leen kenn ci yéen am nga moom du mat lu feek man maa ko gënal boppam gënal ko njabootam gënal ko léppam kon bëgg bëgg sëriñ bi wuruñ koo yemale maanaam amul fuñ amul amul fu mu war a yem suñ bëgg suñ bëgg gi ñu bëgg sëriñ bi dafa war a xóot xóotaay boo xam ni amul fu muy yem aw hadiyaati ki bëgg nag faaw muy génnee addiya waaw muy génne addiya kon liggéey bi dafa am dafa am ñett dafa am liggéey bi dafa am loo xam ni xidma moo koy def mooy ñaq ñaq moo moo koy def mu ñaq moo koy def maanaam bu ñun ñëpp toogoon kenn ku nekk làmb poosam joxe du tax loolu sotti parce que ñaq dañoo war a jóg jëm ma koy def boobu mooy xidma mooy mbooloo mi jóg dem songu dara def ko dafa am boo xamante ni nag joxe moo koy def nafaxa mooy kenn ku nekk làmb sa poos ñu joxe ko bu boobaa nag bu bu ñëpp toogee kenn làmbul poosam bu boobaa mbir mi du sotti faaw nit ñi làmb seen poos pour loolu sotti ndax luy làmb poos koy sottal kon ci ci ci ci ñetti pilier yooyu ci la sëriñ bi teg teg teg mbir mi bi mu ñu waxee ni liggéey bi nag bi mu ñu ko waxee ba noppi léegi nag mu mu mu wax ñu añ bi lan la añ bi añ bi lan la mu ni bushra li kulli muridin salla mujtahidan fi xidmati cheikhi fa man faasat bihi shuhada mu ni mbégte mbégte ak teraanga na bépp murid boo xam ne da ngaa sóobu ci farlu ngir liggéeyal sëriñ bi way texekat ya fa ñu yem ci texe foofu ngay tàmbalee jëm kaw mooy li wolof di wolof yi tënk ni sëriñ bi boo ko defalee loo loo man mu defal loo munut boo ko defal loo munut mu defal lu kenn xamul euh, mu mel ne xidma boobu comme ni ma ko waxe woon dafa am yéene joo yéene ju ju ko lal léegi nag sëriñ bi mel ne dafa ñuy gën a yee ci ni bu ñu àggee ëllëg bu ñu bu ñu jaawale mbir yi il faut ñu xam maanaam sëriñ bi li mu woote lu mu doon ñu góor góorgóorlu ci farlu ci mooy joxe sa bopp te bañ cee xaajale dara bañ am moom moomatoo dara yow sa lépp nga jox sëriñ bi tey te muy dëggu ci yow mooy tax bu ñu àggee fële mooy li mu wax ci Masaalikul Jinaan bu ñu àggee fële dañuy day am wootekat bu wootee buy wootee dañ naan kii lu muy woote lu mu doon mu ne ana ana liggéeykat yi ana liggéeykat yi bu ñu nee ana liggéeykat yi nag bu boobaa boo moytu mbett mën naa am parce que mbett mbett mi am mooy. liggéeykat yan lañ wax liggéeykat yan liggéeykat yan lañu wax liggéeykat yi ñu wax mooy yi sëriñ bi jiitaloon sànq ci bayit benn toobaale abdul muridin saatixan liggéeykat yooyu lañ wax mooy in xadara yowma albaari wa duriba siraat fawqa naari wa kaamadal wara jawaawal xumma naadaa mu naadin ayna ahlul xidma ayna ahlul xidma lil muslimiina fa ajaaboo ajmaina fa yu'maru lil jinaani musrihin suñ suñ suñ su su wootekat bi wootee ñu ne ñu ne ñu yan liggéeykat lañu wax mooy mooy ñi loon liggéeyal jullit ñun leen yéen kat bu ñu jógee ni ñoo ngi nii ñu ni yéen dugg leen àjjana amul seen mbir kenn du ko xool seen mbir kenn du ko xool mooy mooy li li ci sëñ bi kii euh, léegi nag sëriñ bi jox ñu ay junju maanaam liggéey bi dafa yaatoo dafa yaatoo xidma dafa yaatoo waaye sëriñ bi jox ñu ay junj rek ni ñu jàppale ci yii benn bi mooy jëmmi sëriñ bi ci boppam mu njëkk mu njëkki ci sëriñ bi mu ne ñu wa xaayatu tawxiiri waqir say xakaa waj alhu sayyidan lahu hëb xayraka mu ne wegaa wegeel ak fonk fa mu yem foofu ngay tàmbalee fonk fa sëriñ bi maanaam fa fa war a teg sëriñ bi fu gën a kawe foo foo xalaat ne war nañ faa teg sëriñ bi rek xam ne sëriñ bi war naa gën a kawe foofu foo xalaat ne war nga faa teg sëriñ bi jàppal ne sëriñ bi war naa gën a kawe foofu mooy xaaya xaaya xaaya mooy boo demee ba yem nga yaakaar ni fii nga yem fekk ca kawam li kawam war na koo mu ne sëriñ bi foofu naan nga ko war a def maanaam wegeel goo xam ni day kawe kawe kawe kawe ba fa nga yem fa fa nga yem nag ca kawam li kawam foofa foofa foofa la foofa la jëm muy muy jëmi sëriñ bi mu ne mboolem yiw woo am yiw am rek lu mu lu mu baax baax lu mu rëy rëy lépp jébbal ko sëriñ bi muy doom jébbalal sëriñ bi muy alal jébbalal sëriñ bi xam nga suñ jamono ji ñu toll nii bokk na ci li gën a yàq jamono mooy xaajale bi xaajale xaajale maanaam jur doom doo jox sëriñ bi waaye da jur doom jël jox tubaab jël genn wàll bi jox tubaab bi waaye bu fekkonte ni li mag ñi doon def ku jur doom jox sëriñ bi sëriñ bi def ci ci war a def alal nga jox sëriñ bi lu lépp loo am rek mooy mooy xayraka sa yiw yiw sa yiw yëpp joxal sëriñ bi rek sëriñ bi moom moo xam yow xamoo mu ne waqdi lahu xawaaija maista bil basli wal xidmati mastataata mu ne sëriñ bi lépp aaju jum aajowoo loo yaakaar da koy aajowoo maanaam waxuma sax nga xam ne aajowoo na ko de ngay njort rek ne sëriñ bi bari naa bëgg fexeel dem wuti loolu maanaam aajoom nga di ko faj ni ñu faj aajo sëñ bi mooy bil basli ci joxe joxe joxe joxe moom am solo ci yoon wi wal ak liggéey mooy ñett yi ma indi léegi rek mastataata nee na nag na nga dox ba ba def loo man ak loo kon boobu mooy sëriñ mu ñëw ci xidma beneen mooy sa ñaari waajur mu ni wa burra foq warfaq bihima wa kun mubaadiran ila amrihima mu ne sa ñaari waajur xidma na nga ko jëmee ci ñoom na nga ko jëmee ci ñoom maanaam da nga baax jëm ci ñoom lépp loo xam ne yittewoo nañ ko nang ci gaaw lépp loo xam ne yittewoo nañ ko ci taxaw boobu mooy xidma jëmee ci ay waajur mu ne wan tay an jumlati ma xat nax yaaka anhu li rabbika fa yasdaadu ulaak mu ni sa ñaari waajur yooyu lépp loo xam tere nañ la ko na ko moytu lépp loo xam duñ tere la rek na nga ko moytu maanaam daal na nga jëfe seen diggal waaye luñ tere moom nag bu ko jege bu ko jege kon sëriñ bi indi lañu ni ñuy liggéeyale sëriñ ci boppam indi lañu itam ni ñuy liggéeyale waajur yi mu ne boroom xam-xam yi ak jaamukat yàlla yi nit ñu baax ñi nit ñu baax ñi kon sëñ bi dafa yaatal moom xatalul dafa yaatal nit ñu baax ñi nit ñu baax ñi na leen fonk di leen siyaare te di leen liggéeyal ngir jëmmi yàlla li wolof di wax naan gëm ñëpp topp kenn gëm ñëpp topp roy ak romb mu ne watlub duwaa awum wa man nihim abada wa kun saa kenn fa tasdaadu mu ne nit ñu baax ni na nga tak na nga nga sax ci di leen liggéeyal dangay sax ci di leen liggéeyal di sàkku barke ci ñoom di sàkku barke ci ñoom foo xalaat ne barke am na fa nga defa barke boobu benn la ci xidma mooy liggéey jëm ci nit ñu baax ñi beneen xidma bi ci topp mooy liggéey liggéeyal maanaam ku la mag kibar kabir sinni mu ni saa yu ngeen àndee koo xam ne moo leen mag nanga nanga ko wekk na nga ko fonk waaye na ko liggéeyal ci lépp loo xamante ni lu mu soxla la soo ko defee sa aajo boo fajee aajoom sa ajo day faju boo fajee aajoom rek sa aajo lay faju mu ni waaye suma sahabta saxsan akbaru minka fala tasal lahu muwaqira waqdimhu fi jamihi ma yaxtaaju ilayhi tuqda laka baxdal xaaju kon sëriñ bi lépp lu mu sataane ku ko def rek fa saasal la la mu digle la mu dala ciy fekk sëriñ bi gën a dem ba ci nun suñu àndoon di tukki ñun nii suñu àdduna di tukki sant digal nañu kenn ku nekk ci noonu maanaam muy taxawu moromam bu ñu àndoo di tukki ñun ñi kenn kuy nekk ci noonu war a taxawu moroomam ci liggéeyal ci liggéey ci maanaam jàppale jàppale jàppale sa morom ci lu mett ci moom ak lu dis ci moom loolu lépp ci day dugg ci xidma mu ne waxay suma sahabta xawman fi safarin fa kun muiinahum ala kulli watar na nga nangoo yanu coono bi na nga nangoo yanu coono bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mourides waaye di nuyu itam borom ëtt bi di Cheikh Ahmadul Muxtaar noonu lañuy ñuy nuyoo sëriñ Abdourahman mi xalifab sëriñ Cheikh Ahmad Mbacke Gaynde Fatma waaye di nuyu bu baax itam sunu wasila sunu yaakaar Cheikh Moustapha moom sëriñ Mohamed ñu ngi koy ziyaare bu baax di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di nuyu itam ay jëwriñam di ci jiital soxna maam bu sa Mbàkke ak Baye sëriñ Diop Maxtaar ak kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci seen ginnaaw sëriñ Modou Kane ak soxna ñaanam mi nga xam ne moo fi teewal eh, soxna maam bu so ñu ngi koy nuyu bu baax waaye bu nuyoo yooyu jàlle itam ñu ngi nuyu waa kër gi nga xam ne ñoom lañu fekk si muy atub sëriñ Amsatu di ko sëriñ Abdoulaye di kontaan lool ci daje gi nga xam ne moom lañ daje si fii te yaakaar naa noonu ko sëñ Amsatu waxe woon rek du hasard bég nañ ci loolu itam waaye biñ jógee ci loolu itam ñi ngi sant sëriñ Mouhamed sàmm mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan ci ma muy waxtaan wu am solo doon waxtaan woo xam ne itam sunu waxtaan la sunu yitte la ndax ñun ci lañ war a nekk ndax ci lañu moom lañu sëriñ bi joxañ waaye biñ ñëwee fii itam fii ñu dalal xam nañ ne maa ngi fi ndax ni ko ñëpp waxee rek bu ma saana nëgë ni ñëpp tàyyeel ndaxu tàngoor ak coona ba kenn du mën a sax teewlu conférence bi waaye biñ ñëwee xam nañ ne kër gee këru ma la liñ fi fekk tamit wane na ko kon ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax tey ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi wuutu sëriñ Abdoulahi ak sëriñ Xaadim suñ borom dëgëral seenu taxawaay te yàggal leen fi ba yéene ya mag ña amoon ñu mën koo mottali waaye di sant bu baax ah, di gën a dolliwaat suñuy kàddu rek ci kàddu ma yooyu waa daayira bi mbooloo mépp gën koo bàyyiwaat xel te yaakaar naa ne yittey jëwriñ yi la waaye sëriñ mi suba bu xëyee mi ngi ciy xëy mi ngi ciy gont ndax ki ñu àndalkat kat ci xitma lay dox te itam lam ñu waxoon ba muy tàmbali mooy moom day dox taxawut kuy dem nag fas yéenee liggéey nag ku bëgg ànd ak moom danga nga feddaliwaat sa laxasaay bu baax kon ñun dañoo war a gën a feddaliwaat sunu laxasaay fas yéenee liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi nag dafa yaatu ci fànn yépp dañ koy liggéeyal ci jëmmam waaye dañ koy liggéeyal tamit ci taalibe yi liggéeyal ko ba ci bàyyi ma yi ak ñëpp loolu lépp ci xitma la ndax buñ xoolee axibaawul xadim bi mu sosoo ak léegi yàggut waaye li nga xam ne liggéey nañ ko fi am na solo lool loolu nag pas-pas ak yitte ju kawe rek moo ko mën a maye kon loolu ñu ngi koy feddliwaat di ci soññaat ñëpp ñu gën cee bàyyiwaat xel ba taxoon na sax am na luñ doxaloon wutoon ay karne yoo xam ne carnet jaayante lañ ko def dugal ko ci biir daayira yi daayira bu nekk ñu jox la benn carnet boo xam ne dañoo bëgg weer bu nekk membre ya bokk ci daayira ba kenn ku ne dinaa jaayante nangam weer wu dee ma joxe ko loola yépp itam la cay jógee buñ ko dajalee ci xidma rek lay jamaat ndax sëriñ bi dañuy liggéeyloo te liggéey bu daanu mu jox ñu beneen te dañ caa war di def loo xam ne na ko sëriñ bi bëggee noonu lañ koy defee ndax ci la suñ njariñul tey nekk ak njariñul ëllëg kon carnet jaayante yooyu ñu ngi koy soññaan mbooloo mi di leen ko fàttali ñu gën koo bàyyi xel ba képp koo xam ne bind woon nga ci nga fas yéene la nga waxoon nga respecté ko bu weer wi di deewee nga joxe ko koo xam ne jotagoo ci woon a bindu tamit nga bindu ci te xam ne loolee kat ab denc la boo xam ne sëriñ baa ngi ñu koy dencal foo xam ne la yàq eggu fa te bu ñu demee ba ñu koy jox kat buñ sañoon luñ ca def rek buñ sañoon danañ ko gën a ful kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te xam ne nag ku ànd ak borom yitte ju kawe foo jaar da nga fedd li sag laxasaay di nga gën a góorgóorlu Ahibahil Khadim amul lu amul àndiku liggéey rek la ndax sëriñ bi moom la ñu joxañ te lu daanu balaa leneen a daanu sax leneen jóg kon nañ ko fas yéene te xam ne liggéeyal sëriñ bi rek mooy suñu ndamul tey mooy suñu ndamul ëllëg ni ma ko daan waxee rek saa bu ñu dajee ci jataay yu mel nii noonu laa koy feddliwaate ne liggéeyal sëriñ bi amul pertement ndax bañ ko dalee tàmbali ba nëgëni si ak yokkute rek lañu ci gis waaye kenn gisut ci boppam ak dellu ginnaaw kon nag loolu rek waroon naa tax ñu gën cee góor góorlu waxumalaan ak payug ëllëg ga nga xam ne moom la ñu dencal te gisaguñ ko te sëriñ bi kat mën na boppam kon loolu nañ ci gën a góor góorlu bu baax waaye di sant bu baax itam ñeenti daayir yi nga xam ne ñoo organiser conférence bi muy Masaalikul Jinaan gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te soxna bu sa jeng jiite ko ak sëriñ Baye Seex Jeng ak sëriñ Amsatu mi ak soxna Ndey Jóob ñuy doon borom ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal seen taxawaay rafet na lool waaye di sant itam daayira bi taawul mun naa Baye Ilimaan Jeng jiite ko ak soxna maam Gay Jeng ak mbooloo mi topp seen ginnaaw ñoom it soxna maam xari siise ñoom ñoom itam gis nañ seen taxawaay ndax ba yëf yi tàmbalee ba naga ni bis bu set ñi ngi woote ñi ngi def seen yitte ci nu nu bis bi rek awee yoon waaye buñ ca jógee itam ñu ngi nuyu waa Taysirul Asir sëriñ ji Fay jiite ko ak soxna maam Jaara Sarr ñoom it seen yitte kawe na lool ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara waaye di nuyu bu baax daayira Miftaahu Nasri sëriñ Baay ji Sey jiite ko ak soxna Ayda Cissé ak mbooloo mi topp ci seen ginnaaw sëñ Abdourahmane a ngi ni toog ak sëriñ Mbàkke jigal ñoom ak mbooloo mu bari ñoom itam seen passeef ak seen yitte ak conférence bi ñor leen ñor wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay rafet na lool kon soxna si nee na ñeenti daayira yi nga xam ne ñoo organiser conférence bi xolam sedd na ci guy yi mi ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal bu baax waaye itam biñ ñëwee ci at bii ñu nekk muy saam jaxate itam dañ fee fekkaat yeneen daayira yoo xam ne dañoo ñëw àndaat ak ahibaawul xadim liggéey bi te daayira yi lépp benn la ndax lépp rek ci sëriñ Mohamed génn ko muy daayira sëriñ Abo bi fi nekk ak daayira sëriñ Souleymane bi fi nekk ak mboolem yeneen daayira yi fi nekk yépp bu sëriñ Abdoulaye Jaxate bi lépp rek ci biir liggéey bi la ñoom it dañoo ñëw àndan ñun liggéey bi rafetal ko lool ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ndokkeel te di leen jaajëfal ci taxawaay bi rafet na lool macha allah suñu xol sedd na ci guyu wax dëgg yàlla te yaakaar ji ci soxna si amoon ba tax mu ne dem leen defe ji ko saam jaxate ah yaakaar ji ku ñëw fii xam nga ne yaakaar jooju mat na sëkk te loolu rek la ci bëggoon ndax moo ñu proposé béréb bi ne defe ji leen ko fa ñu dem fekk si leen biñ leen ko waxee itam ñu rafetlu ko lool def ci seen yitte nag lool taxawaay bu rafet boo xam ne wax dëgg yàlla ba yàgg nañoo dem ay conférence waaye conférence bii ñu ñëw fi moom ah wax dëgg yàlla c'est spécial moom waaw macha allah ñu ngi ñaan rek suñu borom gën koo yàggal gën leen a saxal ci liggéey bi gën koo yaatal ba buñ fi dellusiwaatee sax duñ xaj ci mbaar mi dañuy dolliwaat yeneen mbaar suñ borom it gën a dolliwaat xéewal ci kër gi ba nga xam ne bu ñëwee mbaar mi dañ koy gën a yokk ba ñëpp mën cee xaj kon loolu itam ñu ngi leen koy ñaanal di ñaanal suñu borom gën a dëgëral daana ji ndax fii kërug daara la ñu ngi koy ñaan suñu borom bu baax a baax a baax suñ xol daal sedd na waaye di sant baay Serigne Diop Makhtar mii bu baax a baax a baax ci taxawaayam ak yitteem ci ànd gi nga xam ne ànd na ko soxna si ci lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def rek ñu àndaloo ca nekk ca benn te loolu doon bëgg-bëggub sëriñ bi doon yitteem kon loolu ñu ngi koy ñaanal Baye Serigne yàlla suñu borom gën a dëgëral sab taxawaay gën la fee yàggal gën laa may sag bëgg ndax yow sag bëgg mooy bëggu sëriñ bi rek amatoo bëgg amoo looy bañ lu dul sëriñ bi bëgg saa bu sëriñ bi waxee daal amatut guddi na amatut naañ na bàyyi sëriñ soxlaam seen la mooy la sëriñ bi bëgg na ko am na mu ko bëggee loolu nag ñoo ngi lay ñaanal suñ borom defal la ci tawféex joo xam ne képp ku mas a jiite section bi ndam lu mu am rek nga am lu ko kawe ñoo la koy ñaanal bu baax a baax yaag ñi nga xam ne yow la suñ borom boole liggéey bi nga ànd ko yow teñ fas ko yéene nag te duñ la war mukk ba ilaa yow mi diini lii nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci sa loxo fas nañ ko yéene ànd ak yow saahiran wa baatinan lépp luñ ci man ak lu ñu ci mënut danañ ko def ba sëriñ bi amee ko ni ko bëggee bal yow mi nga xam ne yow lañ ko gàcc ci sa bopp sam xel gën a dal sam xel gën a sa yaakaar gën a dolleeku loolu ñoo ngi koy ñaan tey ñaan nga fasal ñu ko ndax sëriñ bi nee na woon ku sa jëwriñ gërëm gërëm naa la te yow loolu fasal rek xam nañ ne dinañ ko am kon ñu lay sant bu baax di la ñaanal suñu borom la te may la kàttan te may defal la sëg bëgg ndax sëg bëgg mooy bëggu sëriñ bi rek li sant mbooloo mi ñëpp nag suñ limee duñ mën a matale waaye bàyyiwuñu kenn waaye ñoo ngi sant bu baax itam sëriñ Cheikh Mbacke Seye mi nga xam ne moo doon euh, taxliq waxtaan wi moom itam wax dëgg yàlla wax ji am na solo lool sëriñ Mouhamed Samb kontaan nañ ndax thème bii nga indi moom wax dëgg yàlla kawe na njort di sant itam ñi nga xam ne ñoo yore euh, éducation culture jiite ko muy sëriñ Cheikh Bey mi nga xam ne moo la tànn teg ñu fi ku teg la fi. kon moom itam suñu xol gën naa seddaat suñu xel gën naa dal ndax kii mu fi teg kat ku ko mate la ndax bu fi tegoon keneen ku ko mate wut it dana xaw metti ci ñun waaye wax dëgg yàlla liñ doon séenu lépp defal nga nu ko di sant sëriñ Abdourahmane Lo mi nga xam ne itam moo yore woon micro central bi di sant waa communication di sant ñëpp waa presse bi ñëpp ñoo ngi leen di sant taxawaay bi rafet na suñu xol daal sedd na suñu xel gën naa dal si yaakaar ji tamit gën naa dollee ko te jàpp nañ ne buñ fi jógee liggéey bi dana gën a jëm ca kanam kon ñi ngi sant ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ soxna bese ñu ngi doolee sant bu baax xam naa rek ngir jëkkante ak waxtu wi dañu daal jébbal kàddu gi sunu jawriñ sëriñ Modou kan mu wax ci turu baay sëriñ Diop Maxtaar bu noppee nag asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokk jullit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen baal àq di leen baalu àq di ñaan sunu boroom boore ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi sëriñ Muhammadul Muntaxa xalif général kullu murit ñaan sunu boroom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal sëriñ tubaa mu def ko ni mu ko bëggee di ñaan itam weeru koor wi ñu ne sunu boroom lépp loo xam ne def nañ ko ci ci ak jaamu yàlla sunu boroom nan nangul ñu ko lépp loo xam ne def nañ ko ci ay rëcc rëcc itam sunu boroom jéggal ñu ko te ñu yeggale ko ak jàmm ci barkeb Serigne Touba ni itam moo Modou Diakhate mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdoulahi di ñaan sunu boroom yàggal ko fi loolu taw yafal yan bi di waxee ci kàddu Serigne Amsatou Diakhate mi nga xam ne moo fi xalifab sëriñ Xadim di ñaan moom it sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal itam mag ñi nga xam ne ñoo jiitu sunu borom dolli leen ay leer ci àjjana mel ne kon ñoo ngi sant ñëpp rek ci turu sëriñ Amsatu moomu di leen wax ne dal leen ak jàmm ak su ngeen ci seen kër ak sa ngeen ci seen barab di kontaan lool ci jataay bii di kontaan loolu itam ci nii ngeen ko defee ak barab bii ngeen ko defee si mu mel ni kàddu yi kàddu cant lay doon rek bàyyi ci sëriñ am sutu jàng ak mboolem koo xamante ni bii rek yaa ngi fi dañuy jël cant gi di ko teg ci loxoom mu teg ko ci loxol bokk yépp ñi nga xam ne teew nañ fi ci ñeenti daayira yooyu ñi lim léegi muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi di bëgg lool ci waxtaan wi nga xam ne jàll na fi léegi muy sëriñ bi sàmm mi mu ko doon waxtaane muy wàllu xidma ndax xidma dafa yaatu lool te ëmb lu rëy rëy ndax barab bii ngeen toog rek xidma moo ko indi fii mu agsi ndax jëmmi barab bii ñu di ko wax saam njaxate te sëriñ Abdullahi Jaxate sancoon ko bi mu koy sanci day mel na xidma moo ko fi indi woon ndax barab la boo xam ne barab la buñ fi uboon bu jege woon Touba waaye nag bu bari woon ay yëf ñu bari doon ko daw waaye ba mu fi ñëwee mu wax ci waxam juree ja ci xidma boobi sëriñ bi wax léegi bi nga xamante ne bii sunu waajur wa sëriñ Xadim nekk na fi ab diir mu mel ne la doon tax ñu ub barab bi gis na ko fi dellu ca sëriñ ba wax ko loola xamal ko ne ko barab ba kat mel na ne du barabu bayukaay ci saahir rek ndax barab bi xure na te it dëgër na xay na lu ñu fa bay mbay ma du nangu kon day mel ne su fekkente ne manes na ko ñu wuti beneen barab boo xam ne liggéey bii ñuy def muy xidma bi danañ ko fa mën a def man faa amee njariñ loo xam ne njariñul saahir la dana toll ca lañ fay liggéey ci liggéeyub saahir ba sëriñ bi xamal ko ne ko man day barabam ba ma fay dem loolu loola taxutoon ma di fa dem di bàyyi muy nangu du tee ma fa di fa ne di bàyyi muy gànt du tee ma di fa ne ana la tax ma defa mooy xàllal sëriñ tubaa dëkkam bi ba ku ñëw rek mën a dëkk ak sëriñ tubaa gajj bi ak ñax mi sori sëriñ tubaa kon xidma boobu sëriñ bi doon wax léegi day mel ne baatu xidma boobu kon sëriñ bi ci la nekkoon ba bare bi ak fi tey barab bi nag mu tuddee ko barab bu naylul maraam kon sañcoon na ay barab yu bari waaye day mel ne li mu doon sàkku ci sunu boroom muy naylul maraam ba xam ne la mu doon sàkku am na ko kon fii la ko amee moo tax mu tudde ko barab bi kon bu ngeen ñëwee ci barab bii ñëw ngeen seen barab ñëw ngeen ci barab boo xam ne ci barab bi Serigne Touba yi la bokk ñëw ngeen ci ëtt boo xam ne ci ëttub Serigne Touba la bokk kon lii ngeen fi daje ak lii ngeen fi def yàlla na ko Serigne Touba nangu mu mel ne baatu xidma boobu Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla yàlla dolli ay leeram ci la njëkke ndax dafa waxoon wax ju am solo dafa am menn mag mu ñëwoon ci moom bi muy door a toog xalifab sëriñ tubaa ne ko sëriñ bi day yan bi yan bi diis na lool dama dañ la cee bëggoon a jàppale sëñ Mustafaa ne tekk bu yàgg mu ne ko nu ngeen ma ci jàppalee de mooy kenn ku nekk na ma yoral boppam muy ma boobu kenn ku nekk na liggéey ci boppam rek bu kenn nekk liggéeyee ci boppam rek yan bi dana woyof tooy waaye bu fekkente ne kenn ku nekk bu fekk bu kenn ku ne liggéeyee ci boppam man it la ma amee ma yor ko yéen li ngeen amee ngeen yor ko kon liggéey bi yan bi dana woyof tooy waaye bu kenn ku nekk jàppee ne sëriñ Modou Moustapha moo la war a fekk fa nga ne la nga war a def lépp moo la ko war a defal ndax moo fi xel yëpp sëriñ Touba soobaa kon dara mën naa bañ a dox ndax sëriñ bi leen yanu dafa diis gan kon kenn ku nekk la nga amee nga yoral ko sëriñ bi yoral ko sa bopp soo ko defee sëriñ bi yan bi dana woyof tooy ci moom ta barab bi itam di barab boo xam ne nii ngeen fi dajee du asaar ni ko sëriñ Amsatu Jang waxee léegi ndax mag ñi niñ doon rabbe day mel ne bi ñuy def day nuru loo xamante ne bii waaye ëllëg ja lañ doon def ndax boo seetee bi sëriñ Abdullahi di jël soxna Faati doomam di ko jox sëriñ seex Jang mu defa mu di ko mu defa liggéey sëriñ Cheikh Jang waññeeku jël doomam di ko jox sëriñ Xadim Jaxate mu defa liggéey kon day mel ne yu mel nii rek lañ doon ràbb tey ndax gis nga bokk yi fa daje yëpp ci ay bokk yoo xam ne muy ngemb gi muy njaxate gi muy looyeen yi muy njaayeen yi muy yeneen yi mën a leen xaajale ndax lépp bokk gi mag ñi ràbboon nañ ko njëkk tey kon li ci des mooy ñun ñi nga xam ne ñun lañ fi bàyyandi ñu rafetal loolu yi mag ñi ràbboon rafetal gi nag weesu wut nii ñu di ko defee kenn ku nekk def sa yitte ci li nga xamante ne bii mooy lii def lii defar bokk gi ndax dañuy wax ne ñett yi defar bokk dara du ci sax karaw muy loxo yi ak làmmiñ wi ak tànk yi kon làmmiñ wi nay wax lu rafet loxo yi nay jëf lu rafet tànk yi nay dox lu rafet suñ ko dee def rek lépp li ñu mag ñi ràbboon danañ ko tëyee ba bu ëllëgatee bu ñu dajee ak mag ñi duñu rus loola ñoo ko mën a defaral suñu bopp ndax mag ñoom wàcc nañ ba nopp wàcc nañ li ñu war a def lépp def nañ ko ba wàcc nañ la ca des nag kon day mel ne rab sér bi ak buum gi mu jëm ca kanam ci ñun la dese mag ñi seen wàllu wéy na kon ñoo ngi ñaan li fi mag ñi bàyyi tam ne ci suñuy loxo ñun yàlla nañu ko suñu borom sàmmal ba bu ëllëgatee bu dajee ak mag ñi duñu rus ñoo ngi leen sant nag yéen ñëpp day mel ne jataay bi kaddu gi eh, jataay bi daa xaw a maanaam dafa xaw a guddi tuuti waaye yi mënoon na fee gën a gudd waaye kàddu yi diwsiwut kàddu sant rek wàññeeku ni ko sëñ bi waxee léegi mooy xidma bi xidma bi ñu gën koo jamele ci suñ mbokki jigéen ñi ndax ma ci jigéen ki nga xamante ne bii moom la la yàlla booleel muy sa borom kër nga yaakaar ci moom adduna ak alaxira war ngaa def ci moom ma bu wér a wér a wér xidma bi nga defee ci moom mooy fas yéenee xool ci moom te sàkku ngërëmam boo amee ngërëmam adduna ak ngërëmal alaxira am rek soo ko amee si lépp mën naa baax ndax li sëriñ Muntaxa Mbàkke di wax ne lu fi baax jigéen ñi kon jigéen ñi war nañoo gën a lu ci xidma boobu sëñ bi doon wax léegi ci lépp loo xamante ne bii ña leen yàlla booleel ñoom ñu def lu kem seen kem kattan ba am seen ngërëm suñ amee seen ngërëm rek li ñu bëgg adduna mën naam li ñu bëgg alaxira mën naa am te xëy na mën naa am njaboot ga ci meññe bu ëllëgatee mën nañoo doon njaboot goo xamante ne bi daañu taxawal yeneen ak yeneen ak yeneen yu ëpp yi ci ndax li fi nekk yëpp taxaw fi suñ ne sëñ mo sëñ Moussa sëñ Moussa Mouhamed yii mu taxawal yii yëpp dara lépp ci ak yitte ak yëg akuk jigéen ñu nangu woon nangoo liggéeyal seeni sëriñ rek moo indi yi yëpp kon nag lu fi baax lépp jigéen ñee kon jigéen ñi na ngeen gën a góorgóorlu baax ci ci wàllu xidma boobu ñu wax su ngeen ko defee rek lépp lu ngeen bëgg mën naa mën naa yéwén adduna mën naa yéwén àllaaxira ndax jigéen mooy màngasinub suñu borom màngasinub suñu borom nag mën na caa génnee lu ne bu ëllëgatee lam cee génne na doon lu baax te yàlla nay lu baax te tey te jigéen lay génne kon xidma yéen jigéen ñi na ngeen ci gën a góorgóorlu baax baax donte ñun góor ñi am nañ ci wàll ndax léeg-léeg nga wax ne jigéen sëriñ Touba soxna jaara moo fi indi sëriñ Touba ci saahir waaye léppam ak nangoom ak liggéey moo ko mayoon nga ne sëñ Mor Anta Sali moo fi indi sëriñ Touba ci saahir waaye léppam nag ak jaamu yàlla moo tax suñu borom seet ñaari ndab yooyu muy ñaari ndab yu sell mu génnee ci Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul kon nag ndab yu sell yooyu nag mu génnee woon te ñooñu léeg nga wax ko ne jigéen ñi ñu ne sëriñ Mor Anta Sali amatul ah am na ba tey li donte jigéen ñi ki ki muy sàkkoo lu baax donte moom tëggiwut ci yoon bu baax moom mën naa am lu baax moom ndax la muy sàkku rek mooy mooy mooy mooy la ca la ca la ca la am solo ndax firawna soxnaam du woon du won du woon woon ab jullit la woon ci booba jullit amagut waaye nit ku baax la woon te teewut firawna ab yéefar la woon te teewut daan na ca sàkku lu baax kon nag kon kenn kenn ku nekk kala yàlla booleel nga jéem caa sàkku lu baax boo ko ci sàkku rek da nga ko am na nga ko bëggee yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp te xidma bii sëriñ bi doon waxtaanee xam ne lu yaatu la daal xidma daal lu yaatu la lu yaatu la yaatu loo xam ne kenn ku nekk mën nga cee gis sa bopp tàmbale ko ci sa jëmmi bopp rek boo tàmbali sa jëmmi bopp xidma boobu da nga ko gis ci sa bopp ci sa liggéeyub saahir ak sa liggéeyub baatin yàlla nañ yàlla nangul liggéey yëpp saahiran wa baatinan te yàggal fi sunu kilifa yi ba seen taxawaay yi mën a yegg bu baax a baax ñoo ngi nuyu sunu sëriñ sëriñ Amsatu Touré mii nga xam ne moo ne ci jataay bi moo nekkoon kilifa ak barab bii barab bi yaakaar naa ba ci ko sañ ak léegi ren la ci juróom fukki at ci liggéey bi sëriñ bi doon liggéeyal sëriñ Amsatu turi mii nekk jataay bi moo nekkoon jëwriñu barab bi yoroon daara ji di fi jàngale ba agsi fi tey yàlla na yàlla guddal aw fanam te wéral ay cëram kon yéen mag yëpp ak gone yëpp ñoo ngi leen sant yéen mag yi daayira bi jiite daayira bi yëpp bàyyiwun kenn daal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf jërëjëf salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي ظفر حماني على ماهن ما الأبصر والسفر